ñeneen ñi daal di ne na ñëpp ànd ak dal ànd ak jàmm parce que ñoom ay naafeq nañ na ñuy woo Macky Sall pour mu jàpp élection lu mu gën a gaawee pour jàmm am te nag na maintenir li mu wax ne du nekk candidat kon ñooñu xam ne ñun ñoo nekk si dëgg ba buñ faree ak Macky Sall ñeme wuñ ko wanee loolu duñ ko capitaliser wala dañuy jàpp ne ñu ñoo am defet beneen bi ci tegu mooy lu gën a am solo mooy toute les forces vives de la nation ne d'accord ci muy société muy association imam yi ligue des imams et prédicateurs muy RIS al Wahda muy syndicat yëpp def ay communauté ne lii duñ ci d'accord ay syndicat wu travailleurs Sonatel sax bokk ci mais vous pensez que loolu dañ ko war a loolu duñ peuple bi quoi wala ñooñu mënuñu woon toog bañ def communiqué communiqué yooyu bu leen ko xeeb gars yi communiqué yooyu bu ñu ko xeeb yow ñuy toog naan sénégalais yi génnuñu dama lay laaj est-ce génn nga yow mi génn te gis na amna sénégalais yu bari yu génnul ñu leen gis ñi dox seen soxla mel mbir mi intéressé wu leen ma lay xamal ne tay bo wëlelee sa taxaway fi ak ay jour sénégalais yooyu dinañ la fekk ci parce que amna ño xamné ci askan bi il faut que déclenchement am bam yegg ben niveau bi pour ñu dogo ñëw parce que noonu la leen yàlla bindé ci mimétisme lañuy dox ma lañuy topando amna ño xamné amuñu fitu déclencher mbir il faut mu am ñu ko tàmbali pour ñu am fitu ñëw loolu mooy lii dëgg c'est extrêmement important pour ñu xam loolu kon ci diagnostic bi damay ñëw ni tey li xew dafa am loo xam ne wax naa ko démb mooy leader yi dafa am lu ñu warloo c'est surtout les candidats à la présidentielle dama bëgg man ma adressé le message bii nii ngeen dégg ko baax ñun askanu Sénégal ñun ndaw Sénégal tofu ñu jinne jàpp ñu xàmmee nañu ràññee nañu Macky Sall tey mun na confisquer la volonté populaire de mais yéen ñii di nekk candidat kenn du fi falu lu dul ñu la neex ñu fal la ñun askanu senegal li ma bëgg ngeen xam mooy seen taxawaay tey c'est pas la bonne posture mënoo leen taxaw ne élection nañu randal élection nañu puus ne du am te sénégalais seen choix dañ koy waroon def obligatoirement parmi vous les candidats ngeen une campagne que maintenir mais guider peuple bi y a des gens déterminés mais les gens ont été déboussolés les gens ont été désorganisés ku ci dem ci dialogue Macky Sall lay crédibilité populaire pouvoir

dix-huit millions sénégalais yooyu ngeen bëgg a jiite bu ñu nekkee ci moment wu épreuve du leen jaral benn sacrifice réew boo jarul sacrifice noo koy jiite wara a seen destin bu ëllëgee boo war a benn contrat tubaab bi di la menacer ci coup d'état ci suuf fii wala déstabilisation militaire fii wala sabotage économique yow est-ce que di nga def sacrifice boobu noonu pour ce peuple réew da jaral li mu lay jaral kas ñëw mooy dañoo xañ sénégalais yi seen droit wu vote droit gën a sacré nga taxaw ne lolou do ci ànd et lolou do génn benn fan ànd ak sa ñett garde du corps le lendemain kenn gisaatu la les sénégalais ne vous ont pas vu aujourd'hui c'est pourquoi beaucoup de sénégalais tok di bu ngeen jëlu sen responsabilité sénégalais yu bari mun nañ toog bañ def luñu wara def du woon loolu moy la bonne posture waxna ko démb dama koy répéter waat tay aux candidats vous avez l'obligation de poursuivre la campagne partout ngeen xey tak seen auto ànd ak sénégalais yi wëraloo dans plusieurs localités mbolo yooyu noonu Macky Sall da ko mën contenir mënu ko contenir kon bu bu ngeen toogee def dara defoo len dara moy yéen tax Macky Sall du mun a jàllale lii c'est loolu kese la waaw loolu kese la li ci tegu moy ku yor coalition surtout coalition bu am doole bu melni suñu coalition ñun pastif muy jomay président ak ñu ci andal ñëpp nak ci ay leader wala ñu melni PUR mais da nga am ay base maanaam da nga am ay antenne am ay satellite da nga am ay ay ay représentants ci gox yu les comités électoraux les comités locaux dans les départements et dans les communes waxal ak say base pour ñu voir simultanément partout pour def campagne def ay mboro yu bari dox ci meldi né non au report élection par force lolu qui ko défé dans plusieurs localités Je ne mën pas ko contenir dëkk le monde a nekk dans gouvernabilité pendant 5 jours c'est pas possible Maxal, moi, mooy dégager ngir yàlla bi li c'est pas quelqu'un qui est aérien qui vous dit ça parce qu'il est en dehors du pays non parce qu'il est hors du pays c'est quelqu'un qui l'a vécu qui depuis 20 ans beaucoup de sénégalais yi wàcc di le ci mbedd bi ci lépp luy xew te di suivre politique Li, lii méttiwut ci loolu laay le message à tous les coordinateurs départementaux de PASTEF mais tàmbali ko ci coordinateur départementaux ak communaux yu GPS yéen yéen a laaj ay responsabilité ñu dénk leen ko ngeen ne da ngeen a jiite responsabilité yooyu ngeen laaj bu ëllëgee mun na leen tax ngeen am ay responsabilité ak ay fonction politique ndax képp kuy def politique da nga bëgg bokk si ñuy tabax réew mi du du pour servir sa bopp mais pour servir réew mi la dama leen laaj est-ce que yéen ci moment wu confort ak moment wu calme rek ngeen ni laaj ay responsabilité pour guider askan wi wala moment wu difficulté bo amé ak ay épreuve da ngeen wara jité wat askan wi japp na né réponse bi moy li ngeen yag taxawé moy moment épreuve yéen yéen wara jité wat askan wi parce que timay may déglu nii tey dëkk way wala mu dëkk Pikine wala mu dëkk parcel wala mu dëkk lingère wala mu dëkk Kaolack wala mu dëkk Ziguinchor wala mu dëkk Matam mën na bëgg a xeex mais bu génnee bu gisul kenn lu muy def kon yéen yéen a war a déclencher les choses kon yéen ñi nekk ci comité électoraux yi jiite ay responsabilité bu ngeen xëyee maintenir campagne génn woo militant yi def communiquer ci groupe bi ñoom ñëpp ñu ànd ngeen jël ay artère dox population yi ñu bëggoon a génn dinañ leen yëg dinañ yëg ne génn ngeen ñu génn parce que ñëpp a koy yëg a door loolu non obstant restriction internet yi mënu ko téye c'est le minimum que vous devez à parce que y a wax leaders dans vos localités C'est le minimum que vous puissiez faire sinon rek kenn ci ñun matu leader mat leader si bu nekkee ci difficulté nga difficultés, a guider peuple bi xalaat ne nii nañ war a def nga joxe la bonne direction ñi ñi top. la si te nga jiite tous les responsables locaux de Pastef et surtout de la JPS parce que la JPS l'a jiite mais sañ naa soññ nag samay mbokk Pastef vous êtes interpellés soyez les déclencheurs dans vos localités invitez tous les militants à ànd ngeen watch. continuer la campagne parce que ce décret est illégal cette loi de l'Assemblée nationale est inconstitutionnelle ne xam nañ ko constitution may ko assemblée sinon kon Macky Sall bu bëggee un mandat 7 euh, ans 5 ans yi mu nous ne savons pas sax référendum parce que c'est la wax le conseil constitutionnel wax konoon mënoon na ko jaarale assemblée mais mënu ko sax jaarale référendum nga xam ne peuple bi lay laaj mënul wàññi par l'assemblée mais mën na yokk par l'assemblée loolu xel xel nangu na ko kon loolu à une loi injuste ñu ne tenus d'obéir Guy Marius Sagna da koy rappeler tout le temps kon les leaders ay responsables responsabilité ci moment bii nañ koy xam responsabilité du bu méttee nga dugg sa sa sa sangu sa lal responsabilité d'où nga tok nan peuple bi nañu genn peuple bi génn ñu man du def dara yow yaane yow da ngay def politique pour jiite askan wi pour bokk si ñuy askan wi kon yow da nga wara a initier les choses yow da nga wara a déclencher les choses yow da nga wara a diriger les choses yow da nga wara a orienter les choses kon gars yi defet xaajagul bay am ta warul am parce que personne ne peut vaincre son propre peuple message bi yeen la ko adressé bu len mësa bayyi bu len mësa décourager Macky Sall mu ouvrir ben boîte de Pandore bo xamné ne jël na bopam porte yëpp Macky Sall dara deseetu tuko sénégalais yépp ànduñ ci li mais lolu moy suñu ndam sénégalais yépp ànduñ ci comment faire pour les mobiliser ñun ñu def politique buñ ko mënul lañu bayyi lu ñu réussir moy la bataille de l'opinion sénégalais yépp kenn ànduñ ci li ñun xam nañ loolu parce que Macky Sall jël na décision bo xamné amul sénégalais bu ci mën a ànd nga dem ba biir propre camp ay Zahra Iyane Thiam ay Abdou Latif Coulibaly ay Youssou Ndour bi nga xam ne génnoon na coalition il y a de cela quelques mois ñoom ñëpp ne d'accord uñ ci personne n'est à l'aise avec lui nga dem ba am chance boobu noonu léegi yow nga ne yow da ngaa perte xeex bi au nom de quoi